ngi nii topp te di ñu seetaan te di ñu teewlu ci groupe communication Sarsara ci kaddu gi seen mbokkum taalibe Mor Talla Kane Ndongal fii ci kanamu soxna maam Issa Mbacké njiitu fédération Anlou Café man ma dolli ci ñeeyu xare ngir liggéeyu l'islam bi nga xam ne moom lay liggéeyal l'islam ànd ko ak njabootu Seexul Xadim gi ak taalibe Serigne Touba yi ni ko Serigne Saliou daan waxee rek bu laaj kenn nii la mel Serigne Touba xoolal nu mbooloo mel ci kem nu nit ñi mel ci yow noonee nga mel ci Serigne Touba waaye bu ñu natee jotaay bi ci soxna maam Issa dañoo xam ne kon ku bëgg Serigne Touba la kon mbokk yi loolu moo waral chaque année bu ñu dëkk male màggal Porokhane dana def jotaayam bii taalibi yi fekk ko fi wan ko ne fas nañ yéene ànd ak yow bu nu paree itam mu waaj ñu dëkk mal Porokhane danay wax ne nag aw ma bis lépp lu ma am soxna jaara laa ko jagleel waaye saa bu bis bi ñëwee mu feeñal loole kon ni ñuy def mooy dañ ko bàyyee kàddu gi mu nuyoog bokki taalibi yi suñu noppee ñu ànd ak moom ci ñaari laaj rek taxawaay bi nga xam ne soxna si mi ngi koy taxaw ci bis bu màgg bi nga xam ne mi ngi koy dëgmal muy màggal Poroxaan. a wa rahmatulahi taala wa barakatuh maanaam li dañ ko tuddee ngontum jaayante jaayante ak maam jaara ngont moo xam bu Poroxaan desee ñetti fan dañ koy woote daayira maam jaara taxaw la xarit ak soppe ak ñëw kenn ku nekk ñëw fii daje fi indi li nga jaayante ak soxna jaara dañ ko dalee def nag yàgg na lool waaye at mu jot rek day na a faw xa ndax nit ñi moom soxna jaar jaral na leen lu nekk soo wootee xamuñu dëkk bu naqari xamuñu nawet bu bu amut ñoom xol yu nangu la ñoom te xol yi nangul nañ soxna jaara comme ni ko Cheikh Abdoulaye Mbacke di wax sëñ bi Tuubaa xamut nawet bu nangu nawet bu nanguwul xol yu nangu la xam waaye fii ku fi teew xam ne xol yi nangul nañ soxna jaara waaye nag moom sa baale ñemewu bor dafa am pay ndax soo ko defalee loo man mu defal loo mën soo ko defalee loo mën mu defal lu la jom na jaara rek moom kenn ku nekk mën nga wax ci moom ndax wax ci moom yomb na ndax moom jikkoom yëpp alxuraan la ak mbaax rek moo nekk ci moom ndax kere ba muy dem kër ba mu ubbee kaamilam ba dafa yem ci aaya maa kaana muhammadun abaa ahadim min rijaalikum walaakin rasuulullaahi wa xaatimun nabiyyiin mu ne su dul woon ak aaya bi mën a waat ni fa ma dem dinaa fa jur ab yonent waaye su ma fa jur yonent dinaa fa jur koo xam ne kudd Serigne Touba tudd ko moom Seexuna Seex Ahmad Bamba kon sox kon kon liggéeyam bu rëy boobu nga xam 3300 rek la dund fanweer at ak ñett liggéey fi liggéey bu rëy bi man soxna jaara képp ku ko am ku ko ëpp loo dem ca teen ba ëpp ko loo dem ca toole ëpp ko loo dem ca walandoo moo gën laa am pas-pas ci suñu borom ndax innamal a'maal binniyaati jëf yëpp mi ngi aju ci yéene ndax soxna jaara liggéeyal na àdduna ba liggéeyaaleel àllaaxira ndax keppaaram mën nañ ni mën nañ ni école la woon wala daara ndax soxna jaare ku sàmm woon la ku fegalu woon la ku déggoon ndigalul ko ko yàlla boole woon ci kaw suuf la muy Maamor Anta Sali moo tax résultat baa ngi ne fédération wax ko internationale la tey boo gisee li fi teew tey jii rek mën na ni waa dëkk bi rek la waa dëkk bi rek la yeneen dëkk yi ci des ak yeneen yi nekk Europe ak yeneen fédération yi ci des Porokhane lañ ñuy fekk waaye mbooloo mi ngeen fi gis tey amul kenn menn mbooloo moo xam génn na dëkk ñëpp biir Touba lañ jóge waaye li ca des Porokhane lañ koy eggalee incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Bachirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khader ndax ren soxna si waxu ko ñun waa bureau bi ñoo ko wax ñun ñoo daje ne Serigne Bachirou Mbacke Abdoul Khader liggéey bi mu liggéeyal magam yu baax yi tàmbulee ci alaaji baara ñëw ci Cheikh Sidil Muxtaar ba ci Cheikh Mamadou Mountakha te yàqalu leen dara <coughs> lu waay di def ci yoon wi war nga ko cee jox cër ngir jëmmi Serigne Touba ñu ne ren nag dañu koy dara jaale bés bi amul tam benn motif bu tax ñu dara jaale ko ko ba bureau bi waxtaan lu may taxawaay bu rafet boobu mu taxaw ñu ànd man ak soxna si dem fa ak mboolem waa biro bi ñu wax ko ko mu rafet lu ko. tey jii nee na daa génnoon waaye daa waroon a ñëw waaye yebal na fi léegi sëriñ Jili Mbàkke Abdul Wudud mu wax ne bu subaa incha allah bu xëyee dina fi yeblewaat kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm sëñ Jili Buso Abdul Wudud la fi yebaloon kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant bu baax nag daayire yi waaye di sant bokki soxna si ñoom ñi nga xam ne ñooy taaral liggéey bi tàmbalee ko ci rakki boppam. di soxna nday na bu Mbàkke moom Serigne Modou Fati Xari moom Cheikh Mazamba waaye seen mag soxna maam Aram Mbàkke léegi la fi jóge waaye soxna faati Paate Mbàkke léegi la fi jóge wala mi ngi fi sax soxna Ayda Mbàkke mu sëñ Abdou Asi mu sëñ waaye soxna maam Jaara Mbàkke moom Serigne Gaawaan moom maam Cerno Aïcha waaye soxna may munatu buso di doomi ndey soxna si di léppam waaye sunu yaay soxna Faati Mbeng ak mbooleem soppay soxna maam Issa yëpp ñu ngi fi waaye soxna si chef de quartier bi nga xam ne moo yilif xayra dafa yónnee léegi jox ñu benn enveloppe bu fukki junni ne moo ko barkeeloo ci liggéey bi ndax képp ku nekk xayra takk fi ndoom bak tànk ci zahir wala baatin liggéey bi soxna maam Issa di liggéey nga seetaan ko sag murit manes na ko seetaan kon ñu ngi la koy seereel bu baax a baax léegi itam la ma woo téléphone ne ma nag ma jottulil soxna si samay siyaar ak sama cant ak sama ngërëm kon loolu rafetlu nañ bu baax a baax soxna maam Xari Mbàkke moom sëriñ Abdou Kumba Suuna di sëtu Cheikh Mamadou Lamine Baara moom itam mi ngi nii teew ñu ngi koy siyaar baax a baax a baax di siyaar ñëpp njiiti daayira yi nag suñu tuddee maire Faty Anta Touré tuddutam suñu yaay soxna a Guèye kon day mel ni ak soxna yaay Ndiaye Diop tudd nañ njiitu daayira yëpp di siyaar waa bureau bi suñu tuddee daam Kara Modou Sarr Aliou Sarr ak mboolem membre yëpp daam jóob ñu di ay jàmbaar lool nga xam ne liggéey bi mën nañ mën naa am ñun ñooy wax waaye ñoom ñooy jëf-jëf ji ñoom membre de bureau yooyu yëpp fàttewuma ci kenn maa ngi leen di siyaar di leen dokkeel ci liggéey bu rafet bi ñu ànd di def ay réunion dem poroxaan daanaka kenn noppaluwul biñ jàppee poroxaan ak léegi ñu ngi leen di sant leen gërëm te noonu lañ koy defee ba liggéey bi jeex di sant dongay Serigne Saliou yi nga xam ne ñoo fi teewoon léegi di feddali suñu kóllëre ak ñoom <coughs> waaye di sant tam fédération boo xam ne asaabul jànna la tudd lëkkale fukki daayira ak ñaar sëñ Massar Sarr jiite ko ñoom itam ñëw nañ fi ñu leen di sant leen gërëm. maam jaara jaw moom itam bàjjan maam jaara ñëwul dafa xaw a tawat waaye ñi ko fi teewal ñoom itam ñu ngi leen jot leen seen jant. lii jaalewaat nag sunu membre yi nga xam ne ñoo fi bàyyeeko woon daaw te bokkoon ci daayira bàjjan Cekke Njaay di ñaan yàlla sunu borom mu yërëm leen. xaari leen ajjana soxna si nag waa daayira yëpp ñu ngi lay dagaan nga ñaanal nu ñaanal képp kuy dem Porokhane mu dem ci jàmm ñëw ci jàmm yoon wi sedd guyu xat bañ a damm tañ dajee ngërëmul maam jaara soxna si nee na ku ñiite daayira na nga wàcc ab kaamil wala nga wàccalu ko loo man ci xasida na ko jàng wala nga jàngalu ko na nga def sarax ndax sarax mën naa fa nga lu baree bari sëriñ Touba wax na ci Masaalikul Jinaan ne am na feebar boo xam ne sa nit mën na koo feebar xamul lu koy faj su saraxe woon rek suñ borom saafara feebar boobee kon nag na ngeen saraxe te def tawasul ci yooyu baax yooyu ngeen di def ngir ñu mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm soxna si nag nee na mu ngi soññ boppam tey soññ mboolem ku bokk ci fédération Ahlu Café Touba rawatina njiiti daayira yi ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne njiitu yombul ndax boo jiitoo lépp ci sa kaw lay tege waaye soo ko nangoo suñ borom moo lay dimbale kon na ngeen góorgóorluwaat te bañ a découragé ci liggéeyu sëriñ bi ndax saytaane toujours pexe mi muy jaar doomu aadama bokk na ci fexe mu découragé wala lii mënuma ko wala dama ci néew doole waaye ku ci nekk ci dëggal wallahi azim da nga gis ndimbalal sëriñ Tuubaa fekk si la ndax Cheikh Mamadou Moussa daan wax ne lu ngeen bëggati jiimal leen ko seen bopp su ngeen demee ba tële taxaw leen tàllal yàlla loxo su ngeen tàllalee yàlla loxo du leen neenal ndax lam yor da koy maye. te ni ñu fonkee xewi àddina yi nañu gën a fonk lii nga xam ne mooy daayira yi ndax soxna si kat du toog ku toog wala nga noppalu yaa toog wala nga noppalu waaye mun toog noppalu ñun ñi ànd ak moom dañuy dem ba yërëm ko ci liggéey bi démb rek ci jaayante soxna may bu su maa ngi wax ne ren bi ñu demee Saalum. am na benn bis boo xam ne dañoo def ñetti dëkk te dëkk boo dem dangay fekk mbooloo ma toog kere bi ñuy bi ñuy añ nodd nañ geeba noppi te te te soxna si du ne jotaay bi yàgg na du ne gàttal leen ko du ne tam fii tey laa fi mës a ñëw waaye day toog jox mbir mi yitte ba lépp jeex lépp lu ñuy liggéey si Tuubaa nag ñun ñi ànd ak moom mën nañoo seede noonu la koy defe ba ñuy bay kër ga sax daa jël ak basanam ñëw toog suñ wet di jàng alxuraan di ñu soññaay kon nag nañu góorgóorlu nañ xam ne jëflante yi àddina yi ñuy dugal suñu alal su ëllëgee yow mal kaam du ñu jëriñ dara doo dégg mukk bu ñu taxawalee saa ñu ne kii ab yebbikat la woon wala kii am ndawtalkat la woon wala kii moo daan toj lii bi àddina yi waaye bu ñu taxawalee bar sax lay am solo mooy bokkoon naa ci jàmbaari Pastef su dee benn membre nga na góor góorgóorlu ci waru gar yi lu kafe di def bu ñëw yóbbaale la dara loolu soxna si nee na ci soñu ñëpp ñu xam ne tam maam jaara kenn mënu koo nax waaye maam jaara du nax kenn bokk yi ñaari mbir rek laa bëgg a nettali soog a ñëw lim daayira yi yoo xam ne war nañoo mën a sawarloo ci liggéey bii nuy liggéeyal maam jaara te soxna si ba mu ko xamee moom la tëyeetul dara noppaluwul waxtu nekk mi ci liggéey bi bokk yi waxoon naa leen fii ne leen sunu jàmbaar yi daanu daaw ci dem ca maam jaara la sëñ Muntaxa waxoon ci ñoom rek doy na sëkk ñu góorgóorlu kera ba nu wàccee liggéey ñu toppatoo leen ca hôpital ba yëgal ko Cheikh Mamadou Muntaxa mu jëf ca jëf ju rëy jëm ca jëfoon te kenn fàttewu ko te jëf jooju ba léegi mi ngi koy jëf ndax ki démb accident bi am ca fa ñuy wax 6 kilos 40 millions la joxe moom Cheikh Mamadou Mountakha soo doon lim lim def ci wàllu social doo ko mën a jeexal waaye keroog dane dane ma keroog sëñ Cheikh Abdou Latif moo ne sëñ Mountakha nee na Cheikh Abdou Latif moo yor téléphone bi di wax ak sëñ Mountakha sëñ bi di wax sëñ Cheikh Abdou Latif ma wax mu ne ma Abdou Lahad ma ne ko Mbàkke mu ne ma sëñ Mountakha nee na ñooñu demoon Poroxaan te bokk ci àllu café te ci ab liggéey xam naa soxna si jigéen la dana diis ci moom dana metti ci moom waaye ne ko sëñ mun Muntaxa nee na lépp moo ko yanu lii sëñ Muntaxa ma ko wax ndax maa woote woon ñu wuy si ma kon ñi ma wuy si woon lu leen dal maa ko yanu neen soxna si na oyof toyu ci moom lépp man sëñ Muntaxa gàddu naa ko sëñ Muntaxa nag comme gàddu xam nga ne da nga dem fa neex sëñ Tuuba yemut foofa de mu ne ma sëriñ bi nee na nga dem ci sëriñ Afia Bousso may jiite jumaa yi Tuubaa su subaa mu ñëw taxawu leen su leen taxawoo ba pare bu subaa nañ leen yamale ba pare nag mu yónnee ñetti million ne nañ ko dimbulee ñi faatule ak ñi ami gaañu gaañu kon kooka mat na kilifa fajar teel ma jël oto soxna si maag soxna si ak soxna maam Jaara Mbàkke ak sëfooru soxna si ña nga fanaan kër bàjjen Cekk Njaay barki démb la ma soxna si di ma wax ne guddi gu ma mas a fanaan ci kaw suuf guddi googu moo ci gën a metti ci man waaye ba nu xëyee ma ñëw ci sëriñ Afia huit heures ma fekk sëriñ Afia ubbi mu ne ma yaa Abdul Ahad Jéy ma ne ko waaw mu ne ma mu ne ma sëriñ bi kat wax na ma lim la wax ana fu ngeen toll ma ne ko ña ngi ca armée li di leen waajal mu ne ma nañ dem ma ne ko sëñ Afia damaa bëggoon nga toog ba dix heures ma jël si la ndax noppeeguñ mu ne ma déedéet damaa jot ndigalal sëriñ Muntaxa kon damay ànd ak yow dem taxaw ba lépp sotti ñu ànd dem taxaw ba lépp sotti ñu yóbbu leen ca armeel denc leen ba ñu leen denkee ba pare sëñ Afiyé wax ne kàddu yi ma yëkkati maa ngi ko yëkkatee ci turu Cheikh mun taxaw daa di wax ne maam jéeri waa daan sugu daa bëggoon Serigne Touba lool ba tudde ko mboolam doom yu jigéen yépp daa bëggoon soxna jaara lool ba tudde ko mbooleem doomam yu jigéen yépp bi maam jéeri wàccee ab liggéey Serigne Touba ne ngeen dem gunge ji jéeri ca duggoo ba mbooloo mépp jóg dem gunge ji maam jéeri ba nu demee ñu jullee ko jébbal ko boromam def ay seede jël si ci Serigne Touba Serigne leen dem ngeen ca jéeri ba ñëw ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne ndax ba ngeen koy jullee gisoon ngeen soxna jaara ca sàppe ya ñu ne ko déedéet Mbàkke ñun de amuñ gis-gis bu xóot bu toll ni sa bos bay gis maam jaare ca sàppe ya sëriñ Tuubaa ne soxna jaara ma nga woon ca sàppe ya ba nuy jullee sa njéeri bañ koy dugal ca pax ma soxna jaara nga taxaw lu waral loola sëñ Tuubaa ne daa bëgg soxna jaara ba tudde ko doom jigéen yépp keroog na suñu affaire bu soo xam ne kon ñii demoon proxaan wàcc ab liggéey la maam jéeri am man nañ koo am <coughs> kon liggéeyal maam jaara xel dal na ci kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax beneen bi ci des nettali naa ko ci jotaay yu bari mooy bi ma àndeek soxna maam Isa mii ak seeni jàng ak ku ñuy wax ak ñenn ci mbooloo mu doon siyaare sëñ Muntaxa ñëw daaru mi nam fekkuñ ko fa ñu jóge fa dem tiib ca daaraam ko fa ak ngoon ker di sedd mu toog ci lalu campagne ma ne sëñ Muntaxa soxna maam Isa mii rey dama bëgg nga ñaanal ko ndax day jàmbar ci liggéeyu maam jaar bi waaye ñaanalal ñu ko topp ñëpp nag génnew moo ci kenn ndax dañuy di jàmbar ci liggéeyu maam jaara bi li ko seede mooy ñii Rosso Mauritanie lañ jóge ba ñëw fii di indi seen addiya ñëw daaru minam fekkuñ la fa ñu ñëw fii ci tool yi sëñ Muntaxa ne ma li ñuy defal sëñ Touba liggéeyal maam jaara ci gën xool leen loolu nag li ñuy defal sëñ Touba la li ñuy defal sëñ Touba lépp sëñ Muntaxa ne ne liggéeyal maam jaara ci gën ma ne ko Mbàkke lu tax liggéeyal maam jaara gën ci mu ne ma nit yi neen yi ak tubaab yi bon yi gëmut yàlla dañoo fonk seen i ndey baay kon nag jëmm ju toll ni Serigne Touba lu waay terale baayam sëñ Mor Anta Sali wala nga terale ko ndeyam soxna jaara su ëllëgee sëñ bi yow lay njëkk a fay daane ma su yow mal xiyaamee ba jaam ñëpp taxaw ba sëñ Touba di fay suy woote ñu doon liggéeyal maam jaara lay njëkk a woo yéen ñëpp nag jàpp naa ne bëgg ngeen su wooyee soxna maam Isa ku toppoon ci ginnaaw wuyu ndax yow ma naddu kullu unaasin bi imaamihim kenn ku ne su ëllëgee yow mal xiyaam yàlla du woo kenn par kenn yàlla du def loolu day woo njiit loolee mbooloom topp ko su yàlla gërëmee seenub liggéey muy sant njiit la di sant njiit la ba cant ya dàqal leen tàbbi aljanna su fekkee seenub liggéey jagun nag yàlla safaan ba def ba mbooloo ma dem sawar a gënal leen ñun nag njort nañ ñu ahlu su ëllëgee yowmal qiyaam ca sëriñ tubaa ak suñ borom di sant la ñuy doon ndax liggéey bi yàlla képp a tax te yaatu na te lépp dëgg la kon nag soxna si nee na mi ngi soññaat boppam di leen soññaat amuñ lu may proxaan na ko daayira yi gën a fonkaat am na fi ay mbootaay yu fi ñëw di commencé di adhéré xam ne mbootaay yañ nekk lu baax la xam nañ ne mbootaay ya lu baax la waaye xam nañ ne génn ci maam jaara jaadu na moo tax mbootaay yooyee nekkuñu sax ay daayira waaye dañu ñëw adhéré te mi ngi yokk ndax reen am na ñaari ci dolleeku kon ku fi yor ak mbootaay fental ca biir loxob soxna jaara ngir lu tàng loolee mu seral ko lu tàng la mooy la daganut lii man koo seral ndax benn bu baax ëllëg fukk lañ koy def benn bu bon benn lañ koy def kon nag na suñuy baax baax ëpp suñuy bon bon kon bu leen àddina njattee ba mun leen koo bay na ngeen fexe ba kenn ku ne mboot mbootaay ga nga nekk nga wutal soxna jaara ab loxo boo xam ne su proxaan joxe nga ñëw versé ko loolu nag du propagande dara yéene jàmm rek la jërë ngeen jëf